allah incha allahu rabi voilà voilà voilà acca waay acca waay acca suma gaay yi sama gaay yaa ngi noonu ndeysaan nañ taxaw di xaar pour démarrer campagne bi incha allahu rabi ñooy fii ci Pont Foire ñooy fii ci Pont Foire ndeysaan gis ko noonu Ndiol Colobane ak gaa yëpp a ngi noonu Sa Wolof maa ngi lay ziare naka coode yi fas yéene takku jóg rek gaa yi daa mel dañ koon na moon nag minuit jot na jot na suma gaa yi dañ koon na mu maîtriser voilà acca minuit jot na suma gaa yi minuit jot na suma gaa yi suñ maara maara maara patriote yaa ngi nii sëñ Touré sëñ Touré gi nii ñëw na ñu démarrer campagne bi. kii waaw patriote dañ ko war a xam. xam naa ko de. daa yàgg a taxaw président statut Baye Mbaye dee tax ma xam ko chaque jour ma statut ko. gis nga damaa bëgg di trois heures de matin la ko fa Baye Mbaye wàcc. wallaahi. maa ngi ñoom ànd ak. maa ngi pile. mu yëkkati la muy yëkkati waxtu suul fa. Hmm. fa la nit suma gaay ñu dugg ci oto yu continuer ñu ci oto yu continuer ah waaw. dama jël naa la waxalal waa Porokhane. waaw ah. ah. man maa ngi nuyu waa Porokhane bi. ah waaw Ah? waaw si kaw na yëgee. waaw ah. dama yëg ci kaw di filmé de oto yi jiitu laa yëg oto ban mooy jiitu. salaay man il faut ma yëg fii di filmé de damay filmé fu may filmé laay ñëw bii ci jiitu la bii mooy jiitu. ban mooy jiitu. moto yooyu jiitu moto yi. waaw ban mooy jiituwaat laa avant moto yi. non bee mooy jiitu ñëw si maanaam bu. bële bële. moto yi ñooy jiitu. moo ñëw. moo yor bi. waaw. xaaral ma wàccee weer bi yéeg ci kaw weer moor ubbil weer bi nee ko maa ngi nii nee ko na ma taalal ma wàccee weer bi lii mënta ubbeeku xanaa lii est-ce que yaa xaar bu yaa mënta ubbeeku moor ah, jaay kaay laa bëgg dem ko kaay di kaay di yéen ci weer bi mën laa bëgg a dem ah. kon yéeg leen fi aw ah. fi waaw mais ñun ñaar mënuñu fee ne de il faut nga taal kii taal la kii bi ba ñaar mën nañu fee ne ah lii xat na de parce que président basiru Diomaye Diakhar fay wax na li mu wax xëy na moom neexu ko kontaanul léegi moom daal dafa xool ci entourage am xool àdduna bi xool Sénégal ba mu daj mu ne man la am sama numéro ci patriote yi nekk fii am sama numéro yi la rek comme man seen whatsapp bi ñëpp am nañ sama numéro léegi mu yónnee ma vocal mais su ma leen tegalee vocal bi ah da ngeen di foog ni waa ji daf dafay ñëw pour dóor ma te mu ma ko yónnee xam ngeen ban heure peut-être mu ngi fii nii 4 heures du la ma ko yónnee 4 heures du matin boo déggee vocal ma nekk di waaw waaw loolu léegi waaw président mu naa xaw ma lan lan mu teg ko fan. nii man maa ngi koy déglu ma ne waa man kii kii fu ma yebee kii lan moo ko may non seulement quatre heures du matin mu may vocal mais aussi muy xataraayu nii comme si man dañ kaa wax ne man man man maay assistant wu président de la république wala may jabaram wala man man man ban responsabilité laa am ba man nga war a mën a xool àdduna bi ba mu daj nga ne man nga yónnee ñaari vocaux yu mel nii yoo xamante ni da koy déglu sa xol bi day jeex doo ko sax mën a yeggali pourquoi loolu en fait pourquoi ñuy bëgg di teg parfois nit ñi lu metti cest yow bëgg nga décharger wu nga ne ah man am naa numéro Madiba kon li ma bëgg vidé xaar ma vidé ko si moom xanaa Madiba moom du nit mais je vous jure ah, su ma leen tegalee vocal bi ah bi ngeen dégg ko da ngeen di ne non te c'est pas la première fois mu def ma ko. c' est pas la première fois mu def ma ko bi mooy deux fois première fois daf ma ko defoon ma ne ko sëñ bi da ngay dal da ngay calmé du nii et man mi ngay wax lii man loolu la laa ci man ak yow ñoo ci bokk yem di est ce que yow tane woo ma sax na man Macky Sall daf maa teree voté est ce que yow sax yow mi voté ëppale woo ma sax que man mi voté wu. donc je comprends parfois aussi il faut se rendre compte que parfois da ngeen di teg nit ñi lu diis. c'est arrivé fii plusieurs fois ma jékki-jékki rek fàq gisuleen ma ma jékki-jékki rek jël sama avion dem wala ma jékki-jékki toog ay une semaine du ngeen ma gis c'est parce que c'est trop dafay bëri bëri tellement en fait dañ lay teg teg la teg la loo xamante ne ne àttanoo ko dem nga ba te yow li ngay def danga koy def ak sa xol léegi boo demee ba sa xol neexul wala nga dem ba yow li na teg bëri na àttanoo ko te yàlla xam na ne yow wóoroo sacrifice yi ngay def yow xam nga ko li ngay bàyyi à xam nga ko après dangay ngay jékki-jékki da ngay jël recul léegi léegi benn nit boobu noonu mooy sacrifier ñeneen ñi nga xamante ne ne ñooñu ñu ngi lay xaar chaque guddi ñu ngi xaar nga informer leen mais am na kenn wala ñaar ñoo xamante ne ne dóor nañ la coup yu métti yoo xamante ne tu es obligé nga replier wu léegi su ko defee keneen yi nga xamante ne ne dinaa la ko yóndee ici Sénégal gis naa sa message bi t'inquiète dinaa la ko jox tout ok donc mooy loolu parfois il faut aussi ñuy xalaat tuuti ñuy xalaat ñuy dal ñuy dal tuuti mais tëñëx tëñëx tëñëx tëñëx rëmbax rëmbax rëmbax saaga xataraayu kii xëp xëp xëp te patriote yi noonu lay mel mooy li ma doon wax sànq genre rek ñun daal ñun suñu xol yi nii la mel nii day ubbeeku di tëju di ubbeeku di tëju ñuy mer di kontaan di jooy di fecc mais ba kay euh, dinañ nekk ay nit tuuti tamit te parfois aussi ñu bàyyi di teg parfois ni nit ñi lu métti te ku ci nekk ba ngay meree fale nga ñëw kooku njëkk a mën a bëgg euh, mën a sippi rek nga sippi ko ko man parfois dama naa waa kon ñii nii xanaa kon seen jabar yi lan la ñuy dund wala seen jëkkër yi wala kii bu dee ku ci nekk boo meree rek ñii ngay mer kon yow sa entourage ak les gens qui vivent avec toi je comprends pourquoi y beaucoup de ménages maintenant sa ça marche pas et Sénégal comme on dit ñun suñu góom yi waragul on est blessé en fait suñu góom yi pansement yi waragul dañuy jéem ni instant bi li ñuy woowee transition période de transition lañu nekk période de transition jii nii waaw c'est vrai que non bu dee yàlla moo bindee nii jaam yi de en tout cas moom xëy na kon ñenn ñi la ko bindee ñeneen ñi ñeneen ñi tamit ñu mën a am benn kii problème bi mooy ñi nga ñeneen ñi ñooy toujours ñooy nekk victime mu ña ca des dafa am toujours ñenn ñoo xamante ne ñooy subir ñi même personnes yi toujours même personnes yi ñooy teg ñeneen ñi les mêmes choses y a toujours les mêmes bourreaux et les mêmes victimes tout le temps tout le temps donc parfois il faut il ñi di dal. diw di wàññi xadar xadar xadar xadar bi et tout parce que ça sert à rien boo xoolee boo xool ba pare boo xoolee àdduna bi àdduna du dara la vie là c'est rien du tout mais am na ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy fàtte sax loolu dañuy fàtte ni adduna du dara mais koo ci wax lu mu bëggul a dégg mu mer ku kuñ ba pare même même personne yi ñuy ñëw tamit bëgg la forcer yow na nga wax ñoom li ñu bëgg nga wax ñooy ñëw naan laa waxal si lii ñooy ñëw naan laa waa lii nii na waa ana diw wala ñooy ñëw fekk la ngay wax si benn sujet après ñoom ñu ñëw bëgg la dévier ci sujet boobu doonu ba pare amuñu benn retenue fu ñu dugg rek jaxase ko rëmbax rëmbax rëmbax on est ouais pa en tout cas hmm, yàlla baax na yàlla na yàlla dimbali njabootu Ousmane Sonko bi rek. dimbali dimbali ko moom itamit suturaal ko bu baax a baax a baax a baax ba nga xamante ne ne sëgam moo waat ne ne du décevoir moo waat ne ne lu mu diggee dina ko def moo waat ne ne dina jubbanti Sénégal ah te xam na gëm naa ko te gëm naa ne ne mën na ko gëm naa ne ne am na yéene bi gëm naa ne ne mënuñu am lu gën Ousmane Sonko ci Sénégal ci képp kuy politique dëpp waxuma la 1960 sax bu politique des politiques ba léegi Sénégal musul am ku mel ni comme Ousmane Sonko yaakaaruma sax ñu amaat ko ku mel ni comme moom munu nekk ah, comme que nax duñu ko fekkee kon munu mu wóoruma mais en tout cas on n'a jamais eu quelqu'un comme lui on a foi en lui on a foi en son projet on va accompagner ce projet on s'est battu pour ce projet on va continuer à le faire juumte dinay am du ñàkk on est tous des humains il y aura encore et encore et encore et encore ku foog ne ne ne tout va glisser euh, euh, nii nii ku foog ne ne ne juum du am ku foog ne tout va être parfait waay waay tu rêves mënul nekk parce que ñun ñëpp ay nit lañ ñun ñëpp ay nit lañ y en aura encore des erreurs des erreurs y en aura encore et encore et encore donc euh, faudra se préparer à ça ku foog ne ne chaque fois ce sera la joie parce que soi-disant on a souffert et qu'on a pleuré et qu'on a eu de, de, de la peine on a eu de, euh, de la douleur et tout ça donc c'est fini maintenant genre affaire yi dafay kii rek non tàngoor sax dafay ñëw après nga jékki-jékki euh, seddaay ñëwaat parfois nga xëy nga naaj bi génn nga jékki-jékki rek naaj bi disparaître mm, doo comprendre c'est la vie en fait c'est comme ça ça peut pas être linéaire ça peut pas être parfait c'est impossible oui si on est à eh c'est comme ça c'est comme ça. En tout cas, les 1000, même s'il y a 1200 erreurs, peut-être qu'en en 5 ans, il y aura 1 million. Dans tous les cas, ceux qui croient en ce projet continueront à croire en ce projet. Ceux qui n'y croient pas n'y croiront jamais, de toutes les façons. Et ils chercheront à compter le nombre d'erreurs. Il y en a qui comptent, il y en a qui les compte pas, les erreurs. Moi, ce que je dis tous les jours, ce sont les actes positifs, les actions positives. ce qu'on fait et qui fait avancer le pays qui aide le pays ku nekk li nga bëgg a gis rek ngay bëgg a gis verre bi bu ma ko jëlee ma neen bouteille bii nii damay xool waa kon lii nii yépp moo dem ci bouteille bi loolu laay gis su ma ko xoolee nag ma ne ah lii yépp moo des ci bouteille bi kon lii laay gis bon yow tu dégages tu dégages d'ici ok allez tu me saoules dama ayca c'est comme ça la vie c'est comme ça ku nekk ni nga bëgg gisee rek noonu ngay gisee soo bëggee gis ne bouteille bi moom liñ ci naan bëri na lii jeex na ba pare jeex na su ma bëggee gis ne ne ah man am naa chance bouteille bi am na lu ci des loo xam ne mën naa ko naan noonu noonu laa koy gisee ku nekk rek ak ni mu bëgg gisee su fekkee dangaa bëgg négatif dangay négatif su fekkee ne yow dangaa gaaw a fàtte dangay fàtte suñu defee lu baax yow doo ko gis lu lu lu toujours erreur bi ngay gis mu ñu defee dix yu baax def benn boo xamante ne ne baaxul mais ni mais ni yàlla dafa sàkk euh, ay ñoo xamante ne ay extraterrestre lañ si réew mi et puis tout doit être parfait ça c'est pas possible qu'on se dise la vérité ça ne veut pas dire na que je je dis que je suis d'accord sur les erreurs je suis pas d'accord ci yenn ci erreur yu ñuy def mais mm, il faut que ñu am esprit de dépassement boo xamante ne ne lu nekk nga nattu ko si sa bopp c'est comme yow nit simple donc kese kese kese dénkuñu la dara si sa biir kër rek peut yow kër dong nga yor benn kër nii benn kër a sa njaboot rek da ngay juum dangaa jur sax say propre doom sax di juum ak ñoom parfois nga injuste ak say propre doom yi nga jur waxatumalaat na ku ku njabootee ay millions wi nit waxatumalaat na ku ku ñu dénk lu diis a diis a diis loo xam ne peut-être tu n'étais même pas préparé à ça Ça arrive. Ça arrivera encore et encore. Après si moment yooyu nag le le le le buruxlu bi di commencer nga gis ñenn ñi di gën a ràngati ñenn ñi parce que parmi nous il y a personnes très sensées parmi nous il y aussi d'autres personnes yoo xamante ne il ils sont très excités parmi nous aussi ya y a des personnes yoo xamante ne xoola xamuñu dara ñoom dañuy tëñëx tëñëx rek di dem genre xamuñu sax lu xew. am na tamit ñoo xamante ne ne moo tax ndax ñun tamit daf ci bokk si suñu mission bi Madiba TV ñu wax sénégalais yi lan mooy état man dama bëgg ñu xamal sénégalais yi lan mooy état même si état boo nekkul ci biir c'est nga jàngale luy état mais il faut que sénégalais yi xam luy état xam lan mooy un président de la république un chef de l'état un le chef suprême des armées ñu xam ko parce que ñàkk xam parfois mooy indee lu bëri il faut ñu xamal nit ñi. te ñun foofu la ñu fayiree suñu état yi fi jot a jàll foofu la ñu fayiree si si si jàngal ñu suñu réew ci fexe ñu xam suñu réew ci fexe ñu xam ni pàcc yu bëri yi nga xamante ne ne moo am si suñu réew ñun bu ñu xamoon suñu réew dañuy respecté suñu réew dañuy respecté suñu état dañuy respecté ñi nga xamante ne ne tey ñoo ñuy liggéeyal ci biir administration bi mais non seulement on les connaît pas on ne nous a pas appris quelle était leur mission qu'est-ce qu'ils font en, en, vérité pour nous Et pire encore, chaque fois qu'on leur a euh, confié leur Hamantenene, c'est pour nous, ils ont tout détourné pour eux. Ils ne nous ont jamais vraiment servi. Chaque fois d'Enlenatek pour nous servir, nous, ils se sont servis. Ils ne nous ont pas servi. Donc, à partir d'un moment, eh ben, les gens, ils, ils savent pas ñu xam seen lan mooy seen état ñu xam yéen ñaata société ngeen xam dëgg-dëgg ay société nationale wala ay agence nationale wala ay projet programme yoo xamante ne ci état la wéeru bëriwul xam bu ngeen leen dégg tamit xamu leen réellement lan mooy seen ay mission bu ngeen leen di dégg tamit xamu leen ñan ñoo fay liggéey xamu leen ñooñu luñ leen di jëriñ luñ leen di apporter xamu leen ko parce que waxuñu leen ko mais mënu leen xëy rek ngeen xam ko il faut qu'on vous dise en fait qu'est-ce qu'ils font pour vous quel est leur travail en fait c'est comme les policiers c'est comme la gendarmerie c'est comme l'armée on nous dit tout le temps l'armée est muette ku tudd armée rek ñu ne la yow noppil bul tudd mais pourquoi dans les autres pays on parle de l'armée pourquoi on ne devrait pas parler de l'armée c'est pas un sujet tabou hein c'est l'armée qui est muette c'est pas nous armée ñoom la wax ne ñu noppi ñu noppi ci armée armée la wax ne ñoom bu ñu wax nañ noppi mais sénégalais ci boppam moo xamul réewam moom moo xamul ku nekk lu mu koy jëni bu fekkonte ne ne wax nañu ñun policier lu ñuy daj wax nañu seen seen ñu ñu ñu won ñu ñu gis seen formation gendarme yi seen formation fu ñuy jaar yoon bi et tout tout tout ben en fait ñun dinañu xam ñun dinañu xam dinañu respecter policier bi parce que xam nañ ne policier bi kat lii lay def lii lay def lii lay def policier bi kat dafa war a chargé wu ci sécurité wu personne et bien xam nañ ne genre moom fii la mën a yem fan yi yëpp yéen a ngi gis si mbeddu Sénégal yi yéen a ngi gis gendarmi yi ñuy def ñuy nekk ci tali bi yéen a ngi koy gis non yéen a ngi gis gendarme yi ci tali bi mais gendarme yi ci tali bi c'est pas leur rôle gendarmerie moom moom moom il n'a pas été formé pour gérer circulation loolu moo tax tout le monde ñëpp di kaas embouteillage yi di am di wax ne ne ñii aayuñu mënuñu parce que loolu rôle policier la policier la ñu formé ngir moom mu gérer circulation c'est pas le gendarme moo tax ndax parfois ils font mal le parce que c'est pas leur taf du seen liggéey liggéeyu policier bi la peut-être aussi policiers yi manqué nañu effectif wala xawma euh, gendarmerie ils sont tellement en surnombre on en a tellement recruté on a recruté tellement de gendarmes tellement tellement peut-être que moo tax ñu leen di jël di leen di sottiwaat fële di leen di rabattre ci policiers yi pour les renforcer certainement je sais pas mais c'est pas leur boulot loolu moo tax bu Sénégal boo nekkee di ci tali bi boo duggoon léegi ko àndal dina la ni ñii ñooy gën ñooy gën a xatal coucou Sarah ça va mais Sarah par exemple maa ngi leen doon wax léegi ci administration